bismillah bismillahi rahmaani rahiim <clears throat> baabu siyaami ayyaami l-biidi talaata ashrata wa arbaa ashrata wa xamsa ashrata xaddasanaa abu macmarin xaddasanaa abdul waarisi xaddasanaa abu tayyaaxi qaala xaddasanii abu usmaan an abi hurayrata radiyallaahu anhu qaala awsaanii xaliilii sallallaahu alayhi wa sallama bi siyaami talaatati ayyaamin min kulli shahrin wa rakcatay duhaa wa an uutira qabla an anaama bunti or bis yi wax bis yu weex yi muy fukki fan ak ñett ci weer ak fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom dafa mel ni yonent bi li mu ci jublu yëpp mooy boo ooree ñetti fan yooyu dafay mel ni or nga weeru yëpp ndax alxasanatu bi ashri amsaliha su ko defee boo oree weer wi te def ko ba at mi jeex dafay mel ni kon or nga at mi lépp solo nañ jële ci abu hurayra radiyallahu anhu mu ne suma xarit kii yonent bi sallallahu dénk na ma ñetti yëf mooy or ñetti fan ci weer wu nekk ak ñaari rakkay yoor yoor ak itam bu ma nelaw mukk te wittaruma sallallahu alayhi wa sallam baabu man zaara qawman fa lam yuftir indahum xaddatanaa muhammad ibnu musanna qaala xaddatanii xaalidun wa ibnu alxaarisi xaddatanaa xumaydun an anasin radiyallahu anhu daxala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala ummi sulaymin fa atathu bi tamrin wa samnin qaala aciidu samnakum fi siqaa'ihi wa tamrakum fi wicaa'ihi fa innii saa'imun ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه fa inni la min akthari al-ansaari maalan wa walad fa inni la min akthari la min akthari al-ansaari maalan wa haddathatni ibnati umaynatu annahu dufina li sulbi maqdama hajjaajin albasrata bid'un wa ishruuna wa mi'atun qaala ibnu abi maryama axbaranaa yaxya ibnu ayuba qaala xaddatanii xumaydun samica anasan an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam munti ku dem ziyaara ji aw nit te dogewoo fa ñoom solo nañ jëlee ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi bis dafa dugg ci nekk umu suleymin umu suleymin moo yaay anas moomu umu suleymin daal di indi tàndarma indi itam lu mel ni di ñor bi ne delloo leen diw gi ci ndabam te delloo tàndarma ji itam ci mbusam man dama oor mu ne mu jóg mu yonent bi sallallahu alayhi jëm ci benn boor ci néeg bi julli fa julli koo xam ne doo julli farata mu ne ñaanal umu suleymin ñaanal waa kër ga lépp mu ne umu suleymin na ko yow yonent yàlla man de am naa as njagle mu ne ko kooku kan la wala lan la musulmin ne ko sa liggéeykat bi di anas ibnu malik anas mu ne na yonent bi bàyyul benn xiw bu alaaxira lu ma ñaanal na ko bàyyul benn xiw bu àddina lu ma ñaanal na ko mu ne teg ci ne ne ko yow yal na la yàlla may alal ju bari te yal yàlla may ay doom te yal na yàlla barkeelal la lim la may anas na na ñaan yonent bi nangu na ci moom ndax moom ci ñi gën a bari alal ci wàllu ansaar la bokk ndax nit ñi seen tool yi sax benn yoon la daan meññ ci at waaye moom toolam bi ñaari yoon la daan meññ ndax ñaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ci ëpp doom itam ci la bokk mu ne moom Anas wax na ne doomam na nettali na ko ne ko suul nañ ci ay doom yoo xam ne ci ndiggam lañ jóge moom Anas ba xajaaj di ñëw Basra mu ne téeméer ak ñaar fukk ak nangam am na ñu ne téeméer ñaar fukk ak juróom am na ñu ne téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ba pare te dund na ba passé téeméeri at moom anas mu ne lim ma ñaanaloon ci àddina ak alaxira li ci àddina moom lépp gis naa ko mu ne loolu ma xamal ne li ci des tam nga xam ne fële la aju loolu tam danaa ko gis sallallahu alayhi hmm. baabu baabu sawmi min axiri shahr xaddatana saltu bnu muhammadin xaddatana mahdiyun an gaylaana wa xaddatana abu nucmaani xaddatana mahdiyu bnu maymuunin xaddatana gaylaanu bnu jaririn an mutarrifin an cimraan bni xusaynin radiallahu anhuma an annabiyi sal allahu alayhi wa sallama annahu sa'alahu aw sa'ala rajulan wa cimraanu yasmacu fa qaala yaa fulaanu yaa fulaanu amaa sumta sarara hada alshahri qaala adunnuhu qaala yacni ramadaana قال رجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان bunti or ci mujjantali weer solo nañ jële ci imran ibn xusayn radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi laaj na ko wala laaj na góor imran di dégg laaj nañ yonent bi bi tontu muy dégg moom mu ne yonent bi ne yow diw ndax or nga mujjantali weer wi mu ne dafa foog ne weeru koor la ci jublu waaye man te nekk weeru koor ndax weeru koor moom dañoo war a oor njëlbeen geeg digg beeg mujj gi lépp kon yonent bi lim jublu du weer woowu mu ne góor gi ne déedéet bu doon weeru koor tam du sañ a wax déedéet yonent bi ne ko kon nag boo dogee na nga oor ñaari fan te soltu waxut ne jot na ne weeru koor la abu abdullah nag ak saabit ak mutaraf ñoo jëlee ci imran jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu ñent di weer wi weeru chaban la ci yonent bi jubloon mu weeru baraxlu sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi yowmi aljumaa wa ida asbaxa saa'iman yowma aljumuati fa alayhi an yuftira xaddasanaa abu caasimin an ibni jurayjin an abdilxamid ibni jubairin an abdilxamid ibni jubair ibni shaybata an muhammad ibni abbaadin qaala saaltu jaabiran radi allahu anhu naha nabiyu sal allahu alayhi wa sallam an sawmi ljumuati qaala naam zaada gayru abi caasimin yaani an yanfarida bi sawmi bunti or bisi ajuma mu ne su xëyee or bis ajuma ku xëy or bis ajuma war naa dog Muhammad ibnu Abbad wax na ne laaj na Jaabir radiyallahu anhu ne ko na yonent bi dafa tere or bis ajuma mu ne ko waaw su fekkee ne da nga koo wéetal ci koor gi maanaam or bisu ajjuma bi moom kese moom la tere waaye su fekkee ne da fekkoon nga jiital alxames teg ci ajuma dara nekku ci su fekkee itam boo oree ajuma ji dangay ngay or samedi ja ci tegu ba tey dara nekk sallallahu alayhi wa sallam حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه laa yasuumanna ahadukum yowma aljumaati illa yowman qablahu aw baadahu xaddatanaa musaddadun xaddatanaa yaxya an shucbata alxadis wa xaddatanii muhammadun xaddatanaa gundarun xaddatanaa shucbatu an qataadata an abi ayuba an juwayriyata bint alxaaris radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا قال فأفطري wa qaala xamaadu bnu jacdi samica qataadata xaddatanii abu ayuba can juwayriyata xaddatatu fa amaraha fa aftarat solo nañ jëlee ci qataada mu jëlee ci abi ayuba mu jëlee ci juwayriya bint alxaaris te ci jabar yonent bi la bokk radiallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dugg na néegam bi si ajjuma moom Juwayriya moom fekk mu ngi or mu ne ko ndax ooroon nga démb ci alxames yi mu ne déedéet ndax nam nam nga or ëllëg samedi ji mu ne déedéet yonent bi ne ko bon dogal xataat dina ko wax na ne abu ayuba wax na ne juwayriya nettali na ko ne ko ba ko yonent bi digalee ne ko dogal moom dog na sallallahu alayhi wa sallam baabu hal yaxussu shay'an min al ayyaam xaddatana musaddadun xaddatana yaxya an sufyaana an mansuurin an ibrahima an alqamata qultu li aishata radiallahu anha هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق bunti ndax jagleel nañ dara yenn bis yi maanaam bis sàngam nañ ci def nangam bis sàngam nañ ci nangam mu ne ndax loolu am na wala déet alqama solo na ne wax na aïchatu radiallahu anha ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi daan na jagleel yenn bis yi dara ci jëf aïchatu na ko déedéet ndax yonent bi jëfam yépp def ko daan dappetoo lu mu daan def rek lu muy saxoo waxtu jotee mu def ko sallallahu alayhi waaye kan ci yéen sax moo mën a attan li nga xam ne moom la yonent bi attanoon di ko def kenn mënu ko ci sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi yowmi arafata xaddatanaa musaddadun xaddatanaa yaxya an malikin qaala xaddatanii saalimun qaala xaddatanii umayrun mawla ummi alfadli anna umma alfadli xaddatatu alxadis wa xaddatanaa abdullahi bnu yusufa axbaranaa malikun an abi nadri mawla umara bni ubaydillahi an umayrin mawla abdillahi bni abbasin عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه mun ci or bisi arafa ci koo xam ne nekkoo fële ca ca aj ga moom fadli nettali na xadis jooju abdullahi ibnu yusuf nettali na moom itam malik jëlee abu nadr mawla omar ibnu ubaydillah mu jëlee ci umayr umayr mawla abdillah ibnu jëlee mun fadli doomi xaaris mu ne aw nit dañoo werante ci moom fekk moom ci palaasam la nekk ñoom ñu ñëw fa werante fa bis ci arafa ñii ne bi dafa oor ñii oorut mu ne ma jël këll def ci meew yónnee ko yonent bi boobu mu nga taxaw ci bairam ci kaw gëlëmam yonent bi taxaw ci taxaw ci kaw gëlëm gi naan ña nekk ci bërëb bi yëpp di gis muy naan moo xam ne orut ci bis boobu sallallahu alayhi wa sallam xaddatana yaxya bnu suleymaana xaddatana ibnu wahbin aw quri'a alayhi qaala axbarani amrun an bukayrin an kuraybin an maymunata radiallahu anha أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون solo nañ jëlee ci Maymuna radiyallahu anha mu ne nit ñi dañoo werante am sikk daal ndax yonent bi dafa or wala oru te bisu arafa la mu ne moom may mun a mu jël këll def ci meew yónnee ko yonent bi te mu nga taxaw ca mawqif ba mu ne yonent bi naan ñëpp di ko gis muy naan wér leen na or sallallahu alayhi baabu saw baabu sawmi yowmil fitr